فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن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 ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci صلى الله عليه وآله وسلم نيجي سنت برم سبحانه وتعالى محمد جل ممن ما ينفك غير قولي من شهر رمضان المبارك محمد جل برم سبحانه وتعالى دفنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمكم mooy weeru ko bi nga xamante ne dañ cee wàccee alquran mu nekk ay njub bayyinaatin minal hudaa wal furqaan ba pare mu teg ci ne faman shahida minkum shahra falyasumhu képp koo xamante ne fekk na ci yéen weer wi euh, na ko woor kon muy weer boo xamante ne euh, weeru njub la muy weeru alquran muy weer bi nga xamante ne euh, borom bi subhaanahu wa indi ay leeral ci lépp loo xamante ne alquran la ah, maanaam ak lépp loo xamante ne njub la euh, kon muy weer nga xamante ne moom moo gën ci bi nga xamante ne gën ci weer yi euh, borom subhaanahu wa yabal ci ki nga xamante ne moom mooy gën ji bindee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu nekk kon euh, weeru bon ñu war cee jàngat li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xam ne moom moo aju ci ñu ñu yar cee jàngat li nga xam ne mooy suratul Ma'ârij ndax wéru comme que wéru alquran la manam kon dañ ci jangat sar bi nga xamantene manam benn ci sar yi nga xamantene ne saaru alquran yu mag bi la te saaru alquran yi yëpp a màgg euh, moo tax euh, kon tay dañ ci am mbégte bu reey reey reey ñi ngi ndokkel bi ñepp di ndokkel mbolam ñi nga xamne ñoy ñooy xeeti yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh alquran nak borom subhaanahu wa taala daf ko wutal ay tur yu bëree bëri mu bokk ci alquran mu bokk ci alfurqaan maanaam ak yeneeni saar maanaam ñu naan ko alkitab ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne lenn li wala lu ëpp bokk leeral nañ ko wala bokk lenn li leeral nañ ko ci xasida yoo xamante ne taalifu nañ ko guddi doon ruuxul maani wal bayaan fii sabaati ahrufil qur'aan fii sabaati ahrufil qur'aan صلى الله عليه واله وسلم موي ا سار بو خا تيرو كي قصيده بو خامت دنجي ليرال حديث بي ينبي صلى الله عليه واله وسلم دون واخنا انزل القران على سبعه احرف ما واتي نان القران تي جوروم نياري اف جوروم نياري والا ا القران الكريم muy teere borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala euh, daf ko wacce ngir mu nek lo xamantene kon luy leral nit ñi la waaye tamit mu nekk loo xamante ne ak njàngam day nekk loo xamante ne dañ ciy jaamoo borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam li ta'abbud maanaam mu nekk loo xam ne dañ koy jaamoo borom bi subhaanahu wa ta'ala alqur'aanul karim euh, comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ne kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaru ayaatihi wa liyatadhakkara ulul albaab maanaam alqur'aan téere la boo xamante ne dañ koo wàcce ci yow yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee mu ne li yaddabbaru aayaat yi bu ko defee ñoom ñuy seettantal ci li nga xamante ne moom mooy aaya yi ba pare mu ne wal yatazakkara ulul albaab bu ko defee ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy boroom xel yu ñëw yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom seettantal yi maanaam ñoom ñu mu nekk loo xamante ne da da leen di ak fàttali lay doon ci ñoom maanaam ñu ciy seettantal moo tax mu ne li yaddabbaru maanaam boo xoolee euh, ni mu jëfandikoo baat bi day wane ne dañoo war a xuutal ci li nga xam ne noonu la ñuy seetantalee maanaam waxu sax li yetta dabbaru daf ne maanaam ngir dëgëral ni nga xamante ne moom mooy ni ñu war a seetantalee alquran comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala wax tamit ci alquran mu ne haza zikr alquran a ngi nii lii de ak fàttali la maanaam daf lay fàttali nga delluwaat ci borom subhaanahu wa taala ci tasaan daf lay fàttali nga delluwaat ci borom bi subhaanahu wa maanaam ak li nga xamante ne moom la bëgg ci yow maanaam dafay tax nga fàttali ko kan mooy sa borom subhaanahu wa ta'ala waaye loola day jur ci yow nga mën a nekk koo xamante ne adduna bi yëpp ngay mën a dundal euh, ndax alquran borom subhaanahu wa daf ko def mu nekk euh, kodu euh, univers maanaam moo tax doomu aadama dinañ ko jëw dinañ ko gis léegi incha allah ci basmala bi doomu aadama moom mooy ki nga xamante ne borom subhaanahu wa taala dafa jël univers bi yëpp mu def ko maanaam ci moom moom borom maanaam moom doomu aadama euh, loolu moom moo tax alquran maanaam nekk doomu adama incarné moom tamit alquran comme ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa taala waxee allama aadama asma kullaha borom subhaanahu wa taala dafa xamal moom aadama mboolem tur yi maanaam mooy dafa dugal ci moom mboolem qualité yi. comme dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala léegi nag nit ki moom moo koy exploité wala bañ ko exploiter moom moo ciy nekk moo koy jëfandikoo wala bañ ko jëfandikoo mais lii moom mooy euh, doomu aadama euh, kon loolu moom moo tax ñu naat ko al alamul akbar maanaam doomu aadama moom mooy nit ku ku ku mag ki euh, comme que doomu aadama mooy nit ku mag ki mag ki te moom mooy Euh, univers moom ko al kitaabul mastuur univers bi maanaam moom mooy téere bi nga xam ne dañ koo du ubbi ko maanaam muy déroulé fii raqti mansuur maanaam ci borom subhaanahu wa depuis maanaam ci li mu def ADN lépp lu nekk maanaam mbir mu nekk euh, li nga xamante ne moom la inscrire mboolem li nar xew ci ci adduna bi maanaam daf ko inscrire euh, ci benn téere téere boobu nag moom moo nekk alquran bii nii maanaam tey bu ñu la doon jox exemple dañ naan la mi ngi mel ne tey benn machine boo xam te dañ ko defal ba pare alquran moom mooy euh, maanaam euh, maanaam ñun bi ñu yor nii maanaam bi ñu yor nii te mu nekk suñu téere yi alquran boobu noonu mooy notice bi nga xamante ne non seulement ci lañ codé machine bi mais ci lañ bind lépp loo xamante euh, ay pièces la yu nekk ci machine bi ak benn bu ci nekk lan lay jariñ ak benn bu ci nekk nu muy nu ñu koy jëfandikoo ak naka la war a déroulé woo manam naka la wara a doxé mom euh machine bi mom moy euh alquran ci univers univers bi non la def loolu mom motax tax képp koo xamante ne topp na day am dund bu neex waye comme niko alquran waxe mom man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawma al-qiyamati a'ma képp koo xamante ne da ngaa dummóoyu ci fàttaliku man yàlla dima ma maanaam na nga xam ne da am dund bu xat ma'ishatan danka mu ne wa nahshuru wuti dinañu ko dekkal yawmal qiyaamati bis taxawaay ba mu nekk a'maa ah ko silmaxa parce que lu tax mu ne bu ko defee mu naan li ma hashartanii a'maa ah wa qad kuntu euh, lan moo tax nga dekkal ma man ma nekk ku silmaxa te fekk moom doon naa ci àdduna mu ne ko kadhalika atatka aayatunaa fa nasiitahaa wa kadhalika al-yawma tunsaa mu ne parce que adduna bi nga fa nekkee sama aaya yi dafa ñëwoon ci yow fana siitaxa nga bàyyi ko jëfandikoo wuloo ko bàyyi wuloo ko xel wa kazalika al yawma tunsa naka noonu bis ni ki tey noonu lañ lay fàttee noonu lañ lay bàyyee maanaam mooy da nga doon fàtte fàttelu alquran da nga doon fàtte fàttelu yàlla moo tax nit mënul fàtte yàlla waaye foo ko fekk day fàtte fàttelu yàlla comme ni nga xamné ci sar bi nara jàng insha allah taala dinañ ci gis innal insana halwa euh foofu buñ ci yexé dinañu leral makna yu mel non ak masala yi nga xamné le mec leeg wor wor lu ci bobu mbir kon li mom moy doomu adam manam euh comme que dafa faté won yàlla manam rawati ni yéeféer bi lañu wax dafa faté faté lu won yàlla borom subhanahu wa taala day wul ko ci sax non seulement daf koy fàtteloo maanaam dafa fàtte yàlla mais dafay fàtte moom ci jëmmi boppam boppam comme ni ko alquran waxee wala takunu na nasullaha fa ansahum anfusahum bu leen nekk comme ñi nga xam ne dañuy fàtte fàttelu yàlla ba yàlla fàtteloo leen seen bopp comme nee nañ yàlla duñ ko programme boolewuñ ko ci mbir mi maanaam yàlla day def ba fàtteloo leen ñoom ci seen bopp bu ko defee ngay gis muy def ay paris yu yéeme parce que tey man ma jël parier euh, ci lu ndaw parier ci benn xew-xew parier ci benn am-am benn moomeel benn alal loolu mën nañ ko comprendre ne dama ni ah xaaral ma def lii ma xool ba xam lan la may jural fee mais nga parier ci loo xamante ne pour sa dund la pour l'éternité loolu dëgg-dëgg ku fàtte boppam moo koy def léegi euh, du ñu dugg dëgg-dëgg du ñu yaatal ci yenn domaines yi ci. Euh, biir alquran parce que am na yoo xamante ne tàmbali woon nañu maanaam ak tafsir dan moo ko wutale ak ta'wil maanaam tafsir moom mooy firi ah, nga xamante ne day faram fàcce di leeral ah, euh, euh, comme fassara nga xamante ne moom ak ah, safar ah ñoom ñoo bokk li nga xamante ne moom mooy fi ñu leen jële ah Euh, al isfiraar ah comme maanaam bu fajar gi xaree ba mu commencé leer voilà ak comme ni nga xamante ne mooy safar bi tekki tukki nga xamante ne bu nit ki bu tukkee day daal di commencé découvrir yu bëree bëri bëri ci ay jikkoom maanaam euh, moo tax boo ànd ak nit tukki dëgg-dëgg dana tax nga xam ko dëgg-dëgg maanaam ak tamit li nga xamante ne moom mooy maanaam kon fassara muy leeral maanaam mooy interprétation maanaam mooy ginnaaw bi nga xamante ne mbir mi leer na léegi nag yan dégg-dégg lañ am si mbir mi loolu moom mooy ta'wil euh, insha allahu taala yooyu yëpp dañ koo euh, dañ ko gën a leeral dañ ci gën a ñëwaat insha allahu taala bu fekkente ne euh, lan na ko li nga xamante ne moom mooy tamit li ñu bëggoon a leeral fii mooy am na saar yu bëree bëri wala boog yenn yoo xamante ne mënoon nañ ko tànn rawatina comme tey par exemple mënoon nañ tànn kom ci jotaay comme ci at bi weesu gisoon nañ maanaam sóoratul euh, falaq ak sóoratul naas kon mënoon nañu tànn tànn logiquement sóoratul ikhlas maanaam ngir jëm ko faran fàcce ci weer wi bu amee yeneen saar yu ci tegu tam ñu teg ko ci euh, ginnaaw loolu tamit naka noonu tamit mënoon nañ faran fàcce mënoon nañu leeral maanaam wala boog euh, dugg ci tafsiru sóoratul euh, saar bu mel ne sóoratul xijr nga xamante ne comme euh, ak xijr ak tënku maanaam tëju comme confinement bi nga xamante ne moom lañ nekk maanaam dëgg-dëgg loolu lay tekki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala na ci maanaam yu bari bari bari bari yoo xamante ne dafay aju ci ñun ak rawatina suñu jamono ji manam nit ñu bari manam tay ñun bu ñu taxawal seetlu deug deug ci sar bobu waron nañ mën gis deug deug lo xamantene dinañu jariñ dinañ ci mëna a suñu dundu tay manam ni mu mel ni manam ak ak euh, confinement bi hijr a euh, borom subhanahu wa taala li nga xamantene mom la ci teunk ci ay mbir mom la ci teunk ci ay njàngale ah nga xamantene ne ci njaalbeenu téré bi rek ci njaalbeenu sar bi rek ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين gis nga voilà aka moo bëri waan rubama yawaddu alladhina kafaru aka moo bëri waan lu dul mébét ñi nga xam ne dañoo weddi dañoo nëbbu dinañ gis ci al kufr li muy tekki ci saar bi buñ ci duggee insha allah maanaam dañoo weddi dañoo suul jëf dañoo nëbbu xéewalu yàlla waaw law kaanu muslimin ay waay aka neexoon ñu wommat voilà ak a neexoon ñu woo ma topp lu yàlla bëgg nekk ci lu baax instant bi nga xamante ne tëj nañ jàkka yi ah tëj nañ danse yi mboolem nit ñi xam ne ñu léegi mëntuñ dem danse mais ah a neexoon nag ñu waroon ñu daan dem jàkka ak a neexoon ñu daan dem jumaa ak a neexoon ma doon nekk ci yoon bu baax ak a neexoon voilà maanaam ma ma ma wommatu ci yàlla topp li nga xamante ne moom la bëgg. ma nekk ci li nga xamante ne moom mooy li jaaro ba nga xamante ne tey maanaam li regret yi ak neexoon nga gis même réew ngay gis ñenn ñi ñu ngi naan waaye suñu système sanitaire ah, ak neexoon ñu toppatoo ko bu baax ak neexoon euh, yu bëri bëri yoo xamante ne dafa aju dëgg dëgg dëgg dëgg ci ni ñu war a maanaam nga xamante ne lépp day womatu teg tegu ci yoon bu baax ak neexoon ñu nekk ci loola parce que instant bii feebar bi voilà maanaam. ñoo tax mu borom bi ne darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun bàyyi leen leen ñuy lekk yaqulu wa yatamatta'u bànneexu jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam te ne mooy almataa mooy jumtuwaay voilà mooy matériel yi nga xam ne ñoo fi am waa ñuy lekk di jëfandikoo jumtuwaay rek voilà wa yulhihimul amal seen projet yi seen voilà mébét yi di leen di leen di leen préoccupé ba nga xam ne nekkuñu ci li nga xam ne moom mooy lu baax li waaye fa sawfa ya'lamun danañ xam gis nga. ak yeneen i mbir yoo xam ne nekk na ci biir yoo xam ne bu ñu ko luñutu woon dëgg-dëgg dinañ gis ay mbir yu bari bari bari yoo xam ne ci période confinement bi nii dinañu jariñ euh, waaye euh, bokk na tamit ci saal yi ñu doon xalaat mooy lu demee sóoratul insaan ndax sóoratul insaan dafa nekk saal boo xamante ne day leeralal nit ñi doomu aadama yi maanaam mm, doomu aadama maanaam naka lay nekkee ku mat maanaam naka lay nekkee doomu aadama bi nga xam ne moom la yàlla la moom la yàlla bëgg en tout cas maanaam ne bu matee bu yeggee ci niveau perfection bi nii lay mel muy al insaanul kaamil maa xamante ne saar bi sax numéro saar bi sax muy 76 daf koy junj parce que 76 mooy abd tamit mooy jaam moom mooy aussi kawnu maanaam univers existe cosmos cosmos bi di tegtale ne doomu aadama bi moom mooy univers bu mag bi loolu yëpp mënoon nañu ko tànn euh, waaye ñi nga xamantene mom lañ ci waxtaanal kilifa yi nga xamné ño nek nekk ci suñu daayira bi biñ ci waxtané ak ñoom dañ ñoo xelal suratul maarij euh ñu nang ko ñu jàppe ko non ñu gis ko effectivement bokku na ci ñu leen proposer won kon ñu gis inshallah taala suratul maarij euh saaru alquran nak benn bu ci nekk ci saaru alquran yi dafa am mbóot maanaam dafa am ay secret yu mu làmboo dafa am ay xaqaayit yoo xamante ne dañ koo làmboo yoo xamante ne ñoo kese soo leen jëlee dañuy nekk benn entité bu mag bu mat bu ko defee aaya yi ñëw composé leen maanaam composé xaqaayit yooyu kon saaru alquran bu nekk dafay wane benn wàll ci wàllu borom bi subhaanahu wa taala ne muy feeñalee eh, ay mbiram ak tamit ni nga xamante ne doomu aadama noonu la ko feeñalee maarif euh mom moy dañ ko mëna firé al maarif mom moy ak daraja moy daraja yi euh kon yoon yi nga xamantene daraja moy degré escalier yi wala bok ñu ne al al al al fawadila wa ni'am moy ngëneel yi ak xewul yi nga xamantene mom la borom subhanahu wa taala defal boole manam minde fi waye surtout mu defal ko ki nga xamantene mom moy doomu aadama mi nga xamantene mom moy khalifa yàlla ci kaw suuf dañ koy tuddé al al al maarif manam deug deug bu ko don firi euh leg leg bu dé ci tubab dañ koy mëna tuddé voie d'ascension les voies d'ascension moy yoon yi nga xamantene ne la nit ci mëna jaar ba yegg ci yàlla euh mëna ko tuddé tamit les échelons maanaam mi ngi jugee ci al araj maanaam araja yaa awudu maanaam maanaam kon mi'rajan wala al ma'arij ma maanaam ma'arij mooy pluriel maanaam bu boobaa mi'raj day nekk kon ascension spirituelle maanaam yoon bi nga xamante ne moom la nit ki di jaar di yéeg di dem ci yàlla mais boo xoolee euh, al araj dëgg-dëgg li muy tekki moom mooy loo xamante ne même bu fekkente ne euh, genre escalier lay doon maanaam échelle lay doon mais day am ak dëng gu ci nekk maanaam day am dëng gu ci nekk maanaam day day day day njàdde tuuti. te loolu loolu euh, mooy justement doomu aadama maanaam mu mel ni boo xoolee kon baatu ma maanaam ma maaraj maanaam moom mooy singulier bi maaraj maanaam mooy yoon bi nga xamante ne moom la maanaam moom la ñuy jaar di yéeg boo xoolee escalier ni muy def escalier du ñëw rek di def ni yéeg ci kaw déedéet day day day day day taxaw maanaam nga gis mu daal di dëng tuuti yéegaat léeg-léeg sax nga gis escalier yoo xamante ne ah, dañuy def comme spirale di yéeg ci kaw ah nga gis ne duñu day day day def comme spirale mais échelon bu ne maanaam partie bu nekk ci yoon bi dafay am euh, maanaam day am xeetu ndëng di bu ci nekk maanaam day taxaw après mu jugaat mu taxawaat parce que lu tax parce que yoonu yàlla noonu la mel yoonu yàlla nim mu mel mooy nit ki day nekk ci diggante ay xaal ak ay maqaam maanaam xaal moom mooy nit ki yëg gi muy yëg ne maanaam ji maanaam am loo xamante ne daf ciy nekk mais stationné wu ci mu nekk loo xamante ne borom subhaanahu wa la daf koy def ci xolam mu nekk ak may boo xamante ne moom euh, làmb ko loolu maanaam nekkul loo xamante ne moom sax ci boppam dañ naan lii lu mu lu mu lu mu lu la lu mu acquérir la ba ba ba mën cee téye maanaam loolu moom moo tax xaal day xaw nekk lu bref tuuti maanaam day momentané euh, alors ma maqaama mooy loo xamante ne station la mooy loo xam ne dañ cee taxaw. loolu boo bëggee xam différence entre xaal ak maqama da ngay xool euh, dawalkat yi maanaam euh, léeg-léeg ñu dem ci benn place boo xam ne dañ faa war a taxaw di gis ñuy manœuvrer ngir mën a taxaw fi nga xamante ne moom mooy place bi ñu nekk maanaam instant boobu noonu oto bi occupé na place boobu noonu mais ni ko occupé comme taxawu ci taxaw bu jub te taxawu bu ci carrément loolu xaal la nekk. su demee nag ba mën cee taxaw ba maîtriser ko dëgg-dëgg loolu moom mooy maqaam maanaam kon loolu moom mooy bu boobaa bu tudd station station voilà moo tax sax dangay gis même ci tubaab dañ naan maanaam fii nga war a taxaw maanaam fii nit mooy taxawoon maanaam loolu moom mooy ne nit ki du jugee ci ay xaal maanaam ci yoonu yàlla euh, du jugee ci ay xaal maanaam di dem ci ay maqaam faw noonu lay def maanaam day nekk ci benn xaal après xaal moom mooy comme tey par exemple buñ ne muñ mooy ne natt dal na la nga ni muñ naa nga muñ moment boobu parce que muñ nga yaa ngi ci xaal maanaam borom subhaanahu wa ta'ala defaral na la leer yoo xamante ne mën ngaa téye maanaam supporter situation bi nga xamante ne moom nga nekk kon ci xaal nga nekk mais plus léegi muñ gi di répété wu muñ gi di répété wu muñ gi di répété au début booy seetlu. day gis ni bu affaire bi di doog a dal wala nattu di la doog a dal wala benn façon natt boo xam ne musul la dal nii ci ni mu toll nii ci ampleur bi maanaam ak intensité bi su fekkente ne loolu musul la dal da ngay gis ni maanaam mbir mi au bi day metti mais yow yaa ngi muñ kon yaa ngi ci xaal mais boo demee ba nga xamante ne day mujj nekk lu naturel maanaam muñ gi day nekk lu naturel natt bu ñëw rek da nga naan maanaam da ngay day day naturel ci yow loolu bu boobaa yaa ngi ca maqaamay muñ maanaam parce que léegi stationné nga stable nga maanaam taxaw nga bu baax a baax ci maanaam mu ni ngay mën a muñee maanaam loolu nag natt ko ci mbooleem jikko yu baax yi maanaam jikko yu baax yoo xamante ne dafa nekk ci yow rek bu fekkee ne ni mu ci nekkee dëgërul loolu ci nga ne bu fekkente ne ni mu ci nekkee dem na ba dëgër ci maqaama nga ne léegi nag boo nekkee ci benn maqaama da ngay daal di jàllaat ci beneen xaal maanaam bu gën a kawe yéegaat ci beneen maqaama maanaam lu fekkee nag affaire bi ñàkk stabilité boobu tortuosité boobu moo tax ñu naan maaraj maanaam ñu naan ko al maarij maanaam ko ñu tuddee ko al yoonu yàlla yoon yi nga xam ne moom ngay jaar dem ci yàlla ci biir saa bi tudd na ci ay maarij parce que pour lu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tukki maanaam bi muy tukki bi maanaam di rañaan mooy laylatu isra wal mi'raj euh, mi'raj boobu mu def da gis ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa bi muy yéeg maanaam bi muy dem da jaar ci ay maanaam ay station lool nag symbole la maanaam fenn fu ci nekk dafay jaar taxaw fa euh, gis la fa ne contempler maanaam li nga xamante ne moom mooy jàmmarloo bu baax ak li nga xamante ne moom mooy mbindeefu yàlla yi nekk foofu ak kiimtaanu yàlla ya fa nekk ak maanaam tajalliyaat yi nga xam ne mooy feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala ci place yooyu mu daal di daal di jàll ci beneen Euh, loolu nag moo tax symbole guddik is laylatul isra kooku lan la symbole kese la mais yenent bi sallallahu alayhi wa sallam musul dañ di nekk ci mi'raj boobu euh, wax fii maanaam liñ ci bëgg a wax moom mooy rañaan boobu maanaam yéeg boobu nga xam ne da dem ba yegg ba yegg ci yàlla yeneen bi saa sam dem ba ba ba ba ba ba dem ba yegg ci yàlla borom subhanahu wa ta'ala may ko moom donc mu gis yàlla comme niñ ko Euh, maanaam ni ko Seydina Abdullah ibn Abbas waxe radiyallahu anhuma bimu naan xanaa doyuloon ne yenente bi sallallahu alayhi moom moo am lu ñu tuddee ar-ru'ya mais yent yàlla Muusa alayhi salaam moom moo am euh, al-kalaam maanaam moo wax ak yàlla mooy xejjur yàlla rek que yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo am la ar-ru'ya mooy gis yàlla euh, maanaam moom mooy ru'yatu ru'yatullahi xussisat li'ulaakum lakum yaa dalaalatal xurafaa yi maanaam mooy li ñu wax ci benn fasila euh, euh, bu tudd jawaahirul haqaa'iq daqiiqa euh, fii tajalli yaaqutatil muhaqqaqa sallallahu alayhi wa sallam mais gis yàlla daal yow rek lañ ko may yow yow yow maanaam xussisat li ulaakum maanaam xussisat dañ koo jagleel li ulaakum ngir sa kawe sa yëkkati ko yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lakum yow kese yaa dalaalatal xurafaa mi nga xam ne yow yaay tegtale yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam koo xamante ne maanaam ku xam yàlla la képp koo xamante ne dafa nekk nanditeer wàllu yàlla maanaam yow yaay ki xamante ne yow yaa koy yow yaa bi yow yaa ko joxoon sallallahu alayhi wasallam euh, kon nit ki loolu moom mooy al maarij kon bu yeneen bi sallallahu alayhi bi muy loolu muy def rañaan googu mu def maanaam tukki googu mu def yéeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi ne se maanaam jullit ñi selon niveau bu ñu mën a toll dinañu def même tukki boobu saar bi justement loolu lay dund moo tax ci biir bi mu waxee doomu aadama euh, xeetu bokkat bi mu bokkat xeetu fubi bi mu am nga xamante ne su amee lu baax daal di commencer téye ne man kese man kese yéenewul kenn dara lu baax maanaam doomu aadama bu normal noonu la ne inna insaana xuliqa haluu'an maanaam noonu la mel et que lu mu bëgg lu mu am rek day bëgg nekk maanaam ki gën leen ñëpp maanaam ki gën leen ki ëppale ah su amee lu baax mu commencé xañ di commencé xool naan woyi mënuñu partager bi yëpp mënuñu partager mënuñu seddoo noo lii mënul nekk non noo kon doo dese dara noo kon nangam noo kon nangam et que su fekkente ne lu bon dakaa dal nga gis mu daal di abattu carrément nekk koo xamante ne daa mel ni dañ koo dóor ay yar bu ba mu nooy nekk maanaam loolu doomu adama mel noonu nga xamante ne léegi muy day yërëmtal fu foo ko fekk euh, ku ko gis xam ni kii abaaturu na kii jaaxle na gis ba te ab mbir mi sax day dem ba feeñ ci jëmmam mu ne ñooñu ñenn rek ci mucc mooy al musallin mu ne il lal musallin ba mu des ñi di julli maanaam kon euh, ba pare nag mu commencé indi ñi di julli ñi dëkk ba julli am jeexital ci ñoom rañaan gi ñuy rañaan di yëg ci yàlla dafa am ay maaraj maanaam ay ay étapes yoo xam ne moom la ñuy jaar ay échelons yoo xam ne moom la ñuy jaar ay yoon muy voie d'ascension yoon yi nga xamante ne moom la ñuy yéegi yooyu nag moom la leeral ci biir saar bi dinañ ko gis insha allahu taala ba fi muy jeexale ba naan ulaa'ika fi jannatin mukramun maanaam fi mu tàmbalee foofu illal musalliin ah ba fi muy waxee naan ulaa'ika fi jannatin mukramun ñoom day ci àjjana yi la ñu nekk ci maanaam nekk nga xam ne ñu ñuy teral nañ loolu tamit dinañ gis incha allah bu ñu yegsee ci aaya boobu euh, dinañ gis façon ajjana yi nga xamante ne ñoom ñoo am ak aussi lan maanaam mooy ne ajjana yi am na ajjana yi nga xamante ne ajjana yi xéewal la muy euh, jannatul euh, zaxarif muy ajjana yi nga xamante ne mooy taar taar yi ñoo ci nekk am tamit yeneen ajjana yoo xamante ne ñoonu la ñu tuddee al jannatul maarif mooy ajjana yi nga xamante ne ajjana yi xam yàlla la yooyu euh, tamit mooy yi nga xamante ne élite bi ñoom dañuy gën a dugg ci yeneen xeeti àjjana yi yooyu tamit incha allah taala bu ñu yegsee foofu dinañ ko gis euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit sóoratul Ma'ârij ràññeewoo na ko boo xoolee ci mi nga xamante ne noonu la saar bi bindoo mooy di nga gis ne daal ni mu tàmbalee noonu la jeexale maanaam mi ngi tàmbalee ci lu ñu tuddee at-tahakkum maanaam moom mooy kokkali dégg nga muy kokkali bi nga xam ne moom la yéefir yi di kokkali ci benn ci maanaa yi sa'ala saa'ilun bi azaabin waaqi'a bi nga xamante ne loolu la tekki mooy di kokkali waaw mbugal miñ ñuy dig kañ la ñëw ay way way way a wax rek mbugal ñuy digal way way way way kañ lay ñëw kokkali googu nga xamante ne euh, euh, euh, ci jeexitalu saar bi tamit borom subhaanahu wa taala foofu tamit maanaam moom it saar bi daf kaa jeexalee euh, ak kókkali moom tamit voilà euh, comme ni nga xamante ne maanaam euh, ci jeexitalu saar bi moom la la la borom subhaanahu wa taala di leeral xaalu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefir yi ci mbugal mi nga xamante ne moom mooy bu tar bi nga xamante ne moom moo leen bi xaar ñoom itam Ah, mu jeexale ko ne xaashaatan absaaruhum tarhaquhum zilla zaalika al-yawmu alladhi kaanu yu'aduun maanaam ni mu tàmbalee la jeexee maanaam ñoom dañ doon wax ne kañ la mbugal mi di ñëw kañ borom subhaanahu wa ne leen bis bi ñu leen di digal dina am maanaam lil kaafiriina laysa lahu daafi' ñeel yéefir te mbugal moomu amul dara lu koy jañ maanaam dara lu koy tere ñëw mi ngi jeexalee ni yéefir ñoom bis boobu xaashaatan absaaruhum

maanaam nga gis ne saar bi ni mu tàmbalee noonu lay jeexe loolu tamit dafa bokk ci euh, propriété wu maanaam mandarga ak caractéristique wu li nga xam ne moom mooy sóobu yoonu ci yoonu yàlla mooy maarif yoon yi nit ñi di jaar ba def yegg ci yàlla maanaam loolu moom mooy nag comme li alquran wax kama bada'akum ta'udun ni ñu leen tàmbalee noonu ngeen di dellu ci rafet maanaam mooy nag moo tax mooy li ñu laaj al imam al Junayd radiyallahu anhu ne ko maa huwa nihaaya lan mooy ak jeexit jeexal maanaam euh, mooy terminaison bi finalité bi lan la maanaam nit ki bu yéeg ci yoonu yàlla di dem ci yàlla di gën a yàlla kañ mooy part fi nga xamante ne bu fa yeggee nag léegi maanaam yegg si na ci terminus bi maanaam ci finalité bi mu ne al bidaaya huwa rujuu'u mu ne ak nihaaya huwa rujuu'u ila al maanaam mu ne jeexital bi finalité bi fin bi moom mooy nga dellu si ba nga xamante ne moom mooy fa mbir ya tàmbale fa nga tàmbale loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam boobu muy wax ne noonu la bindee doomu aadama yëpp parce que justement doomu aadama yëpp ci maam aadama alayhi salaam lañ génnee te maam aadama maanaam euh, ci kellute googu la génnee borom subhaanahu wa moo ko tabax defar ko ci anam goo xamante ne defareewu ko benn bi def moom ci boppam mu def ci yaramam maanaam li nga xam ne moom mooy li am ci mboolem adduna bi mu def ci jëmmam mu nekk jëmm ji nga xam ne moo gën a tedd ci jëmm ji ba pare jëmm jooju mu donale ko mbooleem doomam yi ak sëtam yi moo tax wala xat karramnaa bani aadama ne dëgg-dëgg wallahi dañoo teral doomu aadama yi maanaam karaama la koo xamante ne teranga la koo xamante ne maanaam asli yan la maanaam dafa cosaanoo nit ki euh, maanaam ci cosaan noonu la mel ak ku mën doon maanaam teranga boobu daf ciy dugg et ونفخت فيه من روحي ما نام موم بروم سبحانه وتعالى مو ولت موم روحه موم يالا ما نام موي با فري بو يونس صلى الله عليه وسلم خلق ادم على صورته خلق الله ادم على صورته مي نعم، بو يالا دا فو بند مام ادم عليه الصلاه والسلام تي ايماج موم يالا دي نتي نيو تي بسمله بي تي ان شاء الله باسكو كوم مونو نيو تامبالي سار بي تي نوخ تي بسمله سو بسم الله الرحمن الرحيم مي دي نتي تي تي غاو باسكو ليرالون نانيو basmala bi yaataloon nañ ko lool bi ñuy def tafsir sóoratul Faatiha bi maanaam eh, boobaak léegi mi ngi mat mi ngi yam mi ngi mi ci fukki at maanaam bi defee sóoratul Faatiha tafsir sóoratul Faatiha maanaam eh, ci weeru koor bii nii ci la am fukki at bañ ko defee eh, alhamdulillah kon borom subhaanahu wa ta'aala moo defee noonu tam mu nekk dëppale mu nekk xéewal guri maanaam Euh, comme ni ñu koy waxee parce que ñu jàpp ne borom subhaanahu wa dina dugal euh, fukki at yooyu ak maanaam anniversaire boobu ci barke boobu maanaam tilka asharatul kaamila euh, kon doomu aadama bi nga xamante ne kon mooy mbindeefu yàlla bu mag bi borom subhaanahu wa kon fi mu ko tàmbalee ni mu ko tàmbalee wol ci moom woo xam jël doomu a jël salaam yàlla bindee ko ci image am moom maanaam ci ay qualité maanaam ci ay qualité universelle am maanaam borom subhaanahu wa ta'aala mooy al asma pour yàlla yëpp mooy allama aadama al asma kullaha maanaam yàlla dafa xamal maam sa borom kenn nekku ci ngay toroxlu ci yàlla di sant yàlla nekk borom subhaanahu wa taala état boobu soo dellu see ba saa fu nekk nga mel noonu loolu moom mooy lan mooy yegg nga ci yàlla mooy illaa liya'buduun lu dul xanaa ñu jaamu maanaam mooy nga nekk dem ba nga xamante ne saa su ne da yàlla léegi lan moo tax kon loolu lan moo tax ñu tudd bi fi mu tàmbalee noonu la jeexal maanaam mooy justement yoonu yàlla noonu la mel maanaam fi ngay tàmbalee fa ngay jeexal loolu moom moo tax ñu jël occasion boobu leeral ci benn biir loolu moom moo tax kuy doog a tàmbali ci yoonu yàlla da nga koy gis mu fonk alquran maanaam muy jàng alquran lire alquran maanaam ci tàmbale jàng sóoratul Fatiha par exemple parce que bu mënul sóoratul Fatiha bu mën julli Euh, muy évoluer ci yoonu yàlla jikko yu baax yi mu koy jéem a ràngoo di jéem a jikko yu bon yi maanaam loolu mooy tarbiya bi tarbiya bi loolu rek la mooy jikko yu baax di jéem a sori bon yi nekk ci euh, nga xam ne weeru koor gii ngir jariñ loolu la justement ak barke bi nga xamante ne moom moo ci nekk te nañu fàttaliku ne weeru koor moom mooy juróom-ñeenteelu weer ci at bi maanaam juróom-ñeenteelu weer ci at bi mooy weeru koor te boo xoolee doomu aadama juróom-ñeenti weer lay def ci biiru ndeyam euh, borom Ibris Cheikh Abdel Dabba radiyallahu anhu dafa wax wax bu mata bàyyi xel foofu mu ne maam aadama alayhi salaam bi ko borom subhaanahu wa bindee maanaam mooñ yooyu ñu ko doon mooñ ci suuf si maanaam ak di ko defar ba ni mu taxawee maanaam tàmbali mooñ bi ba ni mu taxawee maanaam am na ay étape mais ba ni mu taxawee ba nekk maanaam jëmm ji mat ba xamante ne ci lañu war a ci moom ruux bi borom subhaanahu wa taala di wol ci moom ruuxam moom yàlla maanaam dinañ ñëw ci ruux incha allah ci biir saar bi ñu naan ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu fii yawmin eh, ilayhi fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana dinañ ñëw ci ar ruux maanaam incha allah taala ak différence yi maanaam différence yi entre ruux euh, loolu duñ ci taxaw tey mais borom subhaanahu wa ta'aala bi mu woolee kon ci moom ruuxam nga gis adduna bi maanaam nga gis maam maam Aadama alayhi salaam maanaam juróom-ñeenti weer la maanaam te mi ngi jeexee weeru koor bi maanaam nga gis kon alxuraan la mu wàcc ci weeru koor maanaam bi muy tàmbalee bi nga xamante ne moom ci nekk Euh, maam Adama alayhi salaam kon euh, maanaam dañ koy jox parce que lépp ci moom la départ lépp ci moom la départ ci doomu aadama yi maanaam ci doomu aadama yi euh, nga xamante ne moom la maam maam ci nit ñi plutôt ci nit ñi parce que nit ñi ay doomu aadama yi maanaam kon. maam Adama alayhi salaatu wa salaam loolu nga xamante ne noonu la tàmbalee ci départ bi noonu la doomu Adama tamit di tàmbalee ci biiru ndeyam ngir nga doon ji mu doon ba seen baay baayam et noonu muy évoluer di dem di dem di dem di dem day wëlbatikuwaat ba nekkaat ci albidaaya maanaam ci bi nit ki nag bu demee ba delluwaat ci cosaan boobu loolu moom moo yeggale ci yàlla mooy lan mooy nit ki xolam di sant yàlla fu mu nit ki bu demee ba xolam di sant yàlla fu mu di sant yàlla ci bépp bi di gërëm yàlla nangu borom dogalu borom subhaanahu wa ta'ala muy toroxlu ci kanamam kanamu borom subhaanahu wa ta'ala loolu na ci yàlla waaw loolu moom mooy euh, yegg na ci yàlla euh, kon loolu euh, loolu kon lu mat a bàyyi xel la loolu lu mat a bàyyi xel la bu ñu xoolee tamit beneen mbir boo xamante ne caractéristique la bu mi'raj maanaam ma'arij sourate ma'arij am mooy day alterner entre kii nga xamante ne dafay wax di wane ci moom ak yëkkatiku ak teraanga ak kawe ak ñi nga xamante ne daa iman day wax maanaam ak mbugal ak ñaaw lu ñaaw ak lu bon bi leen di arrivé maanaam moom mooy lan mooy baynal hmm? euh, maanaam baynal su'ud wan nuzul

ak teddal bi maanaam ak teddal nii mooy wàcc maanaam mooy lan mooy ak nuzul mooy lan mooy tey su may mooy descente maanaam mooy montée ak redescente c'est-à-dire que nitu yàlla nit buy dem ci yoonu yàlla bu fekkente ne yoon bi mu bëgg a jël mooy yoonu alquran ak sunna yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam foog mu nekk nit koo xamante ne day am ñaari parti yooyu maanaam day yéeg ci yàlla di jaamu yàlla di wéetoog yàlla di nekk ak borom subhaanahu wa ta'ala sih, mais en même temps il faut que muy wàccaat ci bindee maanaam muy nekkaat en même temps di def redescente maanaam mooy kon day am ñaari relation yu am relation bi mu am ak borom subhaanahu wa ta'ala te dara waru ko ko yàqal surtout boobu dara waru ko yakal après mu def maximum ci relation bi muy am ak bindee ba pare. voilà maanaam yooyu mu koy boole voilà mu koy boole moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam demoon ba nga xamante ne euh, yéeféer yi sax maam ñu ngi ko doon gis mais mënuñu woon xam ne kii dëgg-dëgg war na yegg ci yàlla ak yi muy wax ci nee rañaan yi muy wax yëpp maanaam naka naka la mën a nekk en même temps que moom mooy kii di wax ñun man hadha rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq mais yeneen bi yéemi na parce que day lekk ñam day lekk en fait day day añ ah mais yenent bi yét naka la mën a waxee ni yenent la mais ñun dañ koy gis muy dékki ba pare day dox ci marché yi maanaam day dox ci ay soxlaam di dugg ci marché bi comme ñëpp maanaam loolu nan la mën a nekkee c'est parce que ñoom dañoo comprendre woon ne euh, maanaam ñaar yooyu ñoom ñooy ñaari vole yi nga xamante ne ci la yoonu yàlla de am loolu tamit dinañ ci ñëw mais saar bi da ngay gis day préciser day day daal man day day day day alterner entre ñaari ñaari vol yooyu noonu day alterner entre ñaari vol yooyu euh, beneen mbir bi nga xamante ne nag léegi tamit moom moo nekk ci saar bi te mu nekk mbir yoo xamante ne yu mat a euh, bàyyi la mooy saar bi mooy numéro 70 mooy numéro 70. ci saari alquran yi alquran nag amul dara loo xamante ne sudu fa la noonu rek maanaam dafa nekk noonu rek par hasard wala nekk noonu rek parce que amul woon benn possibilité borom subhaanahu wa taala wàcce neneen lu bokk ñi mu nekk parce que alquran kàddu borom bi la subhaanahu wa taala moo tax saar boobu dafa nekk ci kanamu saar bi nga xamante ne moom mooy sóoratul Haaqqa nga xamante ne boo xoolee ni saar bi jeexee mooy sóoratul di wax ci borom subhaanahu wa ta'ala mi nga xamante ne moom moo aju ci euh, euh, bi mu naan al al al xaaqatu maanaam bi muy wax ci euh, yéefir yi ak li nga xamante ne moom moo leen di dal ah xuduuhu fa xulluuhu summa al-jahiima salluuhu summa fii silsilatin zar'uhaa sab'uuna ziraa'an faslukuuhu ah ak ju mel noonu innahu kaana laa yu'minu billahi alazim maanaam euh, maanaam saar yooyu nga xamante ne day wax xaalu yéefér yi di wax mbugal gi leen di dal di wax mais moom gëmutoon yàlla ak yu mel noonu ak inna la na'lamu anna minkum mukaththibin xam nañ ne am na ci yéen ñoo xamante ne dañuy weddi ak yooyu yëpp maanaam loolu c'est comme si beneen saar bi ci des dañu waa mais maanaam beneen saar bi day tàmbalee ci ne mais euh, mais mbugal gi ñu doon wax kan lay kan mooy nekk et cetera mu ne saxala sa bi azabi leen ko affaire yi la maanaam aji laaj de mi ngi laaj mbugal mi gaa wàññi mbugal ci yéefir yi amul dara lu maa ngi gis mu am lien entre xam ne daa iman dañuy am dañu am lien. Euh, beneen bi ci des tamit moom mooy ne ci waxu yenn ci tafsirkat yi moom mooy kan moo doon laaj kan moo doon saa bi ci benn ci wax yi moom mooy yent yàlla noox la woon alayhi salaatu wasalaam te boo xoolee surtout noox day gis ñaan yi yent yàlla noox alayhi salaatu wasalaam doon wax maanaam naan yéeféer yi ah euh, mbugal bi nga xamante ne euh, comme ni ko yara wa qaala nooxun rabbi laa tadar alal ardi minal kaafiriina dayyaara yàlla bul bàyyi yow sa borom bul bàyyi yéen yàlla waxal sa borom yàlla yow sa borom bul bàyyi ci kaw suuf si kenn ni ci yéen bul ci bàyyi kenn innaka in tazarhum yudillu ibaadak wala yalidu illa fajiran kafaara boo leen bàyyee fii yudillu ibaadak dañuy sànq sa jaam rek wala yalidu te duñ jur illa fajiran lu ne ay kàccoor yoo xam ne kafaara la demee yàlla maanaam kon euh, nga gis lien bi nga xamante ne moom la tamit saar bi nekk ci ginnaaw am ak saar bii nga xamante ne moom mooy euh, sóortu ma ak sóortu euh, Maarij am nga gis ne kon saar yi benn bu ci nekk dafa am rapport dafa am lien ak yeneen saar yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk te Alxuraan noonu la mel de fil en aiguille amul lenn luñ naan saar bii de wax na ko ci lii rek la wax bi mu paree ci loola dugg na ci beneen saar mi ngi cay wax leneen loolu demee noonu Alxuraan daal man day am fil conducteur loolu moom moo tax boo xoolee bi mu waxee sóortul Baqara sootul sootul Fatiha ñu naan eh, ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin amin maanaam kon nga gis mu ñaan yàlla gindi ñu ci yoon bu jubbi teg ñu ci kaw yoon bu jubbi ñu nekk ci biir yoon bu jubbi yoon woo nga xam ne dafa jub xott yaatu te coow waral eh, te leer mooy yoonu gaa yi nga xamante ne yow yàlla dangaa def sa ci ñoom waaye yàlla bul ñu teg ci yoonu gaa yi nga xamante ne ñoom dañoo maanaam dañ leen a mere ak ñi nga xamante ne dañoo sànku loolu bi ko alquran waxee ci suratul baqara dafa tàmbale rek nag alif lam mim zalikal kitab laa rayba fiihi hudan lil tàmbale rek ne alif lam mim daal di téere baa ngi noonu boobu moom amul sikki sàkka te wala boog laa rayba fii bu leen sikki sàkka ci téere ba pare mu nekk hudan jëmmi njub lan mu takkee na ñeen ñi war ragal yàlla kon la nga doon ñaan ci sootu Fatiha mi ngi ni maanaam mu daal di développé nag ci saar maanaam te loolu tamit boo xoolee mboolem saari alquran yi noonu lañ la maanaam dañoo am tout le temps ay relation maanaam amul naka noonu aaya alquran yi amul benn aaya wax ne dañ naan alquran wax na lii ba pare daal yam yam na fii daal ne voilà léegi nag bàyyi na loolu carrément léegi mi ngi jëm ci leneen déedéet maanaam daa iman day am lu ñu lu ñu lëkkaloo maanaam jamais moo tax lépp benn na voilà moo tax alxuraan lépp benn la moo tax na nit ki euh, suy jaar ci yoonu yàlla daa iman maanaam comme ni ñu ko gisu woon sànq ci ne moom mooy nga tàmbaliwaat euh, foofu yeggalewuñ ko woon te lu ba tabaay xel la ñu defaat parenthèse boobu mooy ar-ruju' ilal bidaaya mooy dellu si ci tàmbali bi maam nit ki bu ñëwee di jàng Faatiha daal di jàng yeneen saar yi commencé di jaamu yàlla di def leneen ak yeneen di gën a yaatal jaamu yàllaam di gën a ainsi de suite ak surtout wax bu ñuy dugg ci l'islam baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais gis nga bu demee dem yoonu yàlla dem dem dem dem dem ba maanaam ba yegg carrément day day day rendre maanaam ndekete finalité bi mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ndekete finalité bi moom mooy Fatiha Fatiha ndekete mooy comme li alquran wax mooy alquranul azim mooy alquran bu mag ndekete Fatiha moo yi ci nekk ñu ngi ci biir Fatiha ndekete Fatiha li tax ñu mooy saar bu doy moom dong doy na maanaam boo ko xamee moom dong doy na maanaam mais loolu nag. bu ko mën a xam lu dul mu sóobu carrément ci yoon bi yëpp ba yegg ci wax euh, kon ñu dellu si ci numéro saar bi muy soixante-dixième suura muy suuratul Ma'âridj soixante-dix mooy kun maanaam borom subhaanahu wa bi muy wax mbir yi nekkal mu nekk ne àdduna bi yëpp daf koo amal ci baatu kun maanaam moom mooy soixante-dix maanaam kon nga gis ne yoonu yàlla maanaam faaw ki ciy sóobu mu bàyyee boppam yàlla xam ne moom mënta defal boppam yàlla munoo dem munoo àgg ci yàlla parce que da ngaa góor-góoru da nekk yitte yi loolu ay sabab mais yàlla amul dara lu lay permettre dëgg-dëgg nga yegg ci moom lu dul ne moom moo lay bëgg xëcc la ci boppam maanaam nit ki bàyyi boobu muy bàyyi boppam yàlla mooy iyaaka naabudu yow rek la ñu jaaw bu iyyaaka nasta'in te yow rek la ñuy sàkkoo ndimbal ndax ñun ñu dara yow yàlla laa hawla wala quwwata illa billah amul benn soppandiku laa hawla soppandiku di jóge benn xaal bu nekk ci beneen xaal wala quwwata te benn kàttan ci mën a jañ dara loo xam ne moom lu ñu war a dal la laa hawla amuñu benn soppandiku ci di jóge ci lu ci lenn ci lu bon di dem ci lu baax wala quwwata te amul benn kàttan ci lu bon lu ñu nar dal ci bàkkaar yi nga xam ne moom moom mooy tentation yu métti yi nga xam ne moom moo ñuy arrivé ci ñu mën koo nekk laa xaw la mënuñu julli mënuñu woor mënuñu def dara lu baax wala quwwata te amul benn sañ-sañ amuñu benn kàttan ci dara ci lu ci ci ci ci lu bon buñ ko bu ñu naree arrivé wala ñu am sax kàttan ngir mën a def loola illa billah lu dul xanaa ci yàlla maanaam sukkandikoo ci yàlla daa ima delloo jël sa bopp lépp nga delloo ko maanaam loolu moom mooy ne yàlla moom mooy ki nga xam ne moom rek mooy ki nga xamante ne moom bu ne kun yakun moom bu ne nekkal loolu day daal di nekk maanaam nga comprendre boo nga xamante ne moom ngay comprendre que ne da ngaa war di dellu ci yàlla daa iman loolu et que borom moom mooy wax mbir yi nekkal mbir mi nekk maanaam loolu moom mooy mooy yoon maanaam kon déjà beneen bi ci des tamit bi mu am rapport ak 70 bi. mooy sóoratul Ma'ârij rapport bi mu am ak maanaam turu saar bi ak di nekk ci saar bi ak chiffre soixante dix bi mooy ne soixante dix mooy maanaam soixante six mooy allah allah maanaam parce que xaraf yi benn bu ci nekk dafa am lu muy teg dafa am lu muy lu muy lu muy symbolise alif un la laam trente la ha cinq la maanaam kon booleen boole comme ñaari laam la mooy soixante mooy soixante six soo ci yokkee ñeenti xaraf yi ko composé da ngay am 70 maanaam mooy kun maanaam nga gis ne borom subhaanahu wa maanaam kon da gis ne euh, boo bëggee sóobu ci yàlla jeex ci yàlla maanaam ci yàlla moom ci boppam foog nga def maanaam nga incarné li ñu tuddee sourate mais incarnation boobu ngay def ci sourate Maarij yaa ngi koy def maanaam ak jikko yi ci maanaa yi ci nekk mboolem bi ci ne loolu ak tamit attention bu ñu waxee ci yàlla dañuy daal di ëmbaale kawnu bi tamit mboolem li ci nekk maanaam soo bëggee nekk koo xam te ne da am jàmm sa diggante ak sa yàlla mais aussi comme waxoon nañ ni dafa am ñaari côté yu ko composé mooy yow sa diggante ak mboolem bi ndefi ak sa diggante ak sa maanaam yooyu yëpp baatu yàlla moo ko tënk moo tax allah yàlla moom rek a fi nekk maanaam c'est-à-dire que lu dul yàlla neen la maa xalal laahu baat ala kulli shay'in maa xalal laahu baatin comme li euh, Seydina Labid waxoon radiyallahu anhu bépp mbir boo xamante ne yàlla da deñ rek loola neen la ko mbir bu dul yàlla rek loola neen la maanaam kon ndekete nan ngay def ba jeex ci yàlla maanaam saar bi dafa koy jàngal non seulement ci yàlla mais tamit ak xaraf maanaam lettre bu nekk li nga xamante ne moom la làmboo ci ay secret ak maanaa maanaam saar bi boo ci sóobu maanaam dalay wan ko def bi mi ngi am deux cent maanaam quarante lañ lañ daf daf tàmbale d'abord ci verset yi so mooy aayaat yi quarante la te quarante mooy al ahadu manam moy kenn le monisme le le le le le le voilà l'un unique le wala boog unique unique voilà maanaam loolu moom mooy quarante voilà manam yàlla kenn la te lenn la moy xadara yàlla al ahad ahadiya moy xadara yàlla bi nga xamantene euh fofu amul tout amul melo amul. lenn maanaam amul keneen amul leneen maanaam yàlla rek fi nekk moo tax boo jeexee ci yàlla dëgg maanaam foofu yàlla maanaam moom rek a fa maanaam kon nga gis mais aussi 44 mooy damun mooy deret nga xam ne doomu aadama boo xoolee dëgg-dëgg fépp la deretam jaar ci moom ak ne doomu aadama kenn la maanaam nga gis ne deret amul deret bi nekk bi nekk ci bopp bi ak deret bi nekk ci tànk yi ak deret bi nekk ci loxo yi boo leen seetloo ñoom ñëpp maanaam amul manam wuute wuñ caractéristique ñom ñep ben la mais ànd ak nit ki tamit kenn la manam ànd ak ni cëri dañu dañoo manam bi gis ko nit ki bu jéxé ci yàlla lépp mbir yëpp yàlla la ci gis lool moy xadaratu ahadiya mooy koo xamante ne dem na ba nga xamantene ne nit manam maanaam xadaratu ahadiya bu fekkente té yaa ngi gisee ci foofu moy ni nit manam lépp lépp lépp day gis tout temps un maanaam yàlla rek lay gis ci lu voilà donte euh, léegi nag incarné lu ne séparément gis lu nekk séparément donte yàlla rek ci lay delluwaat loolu agartu waat ci yàlla mais diggante boobu bugguñ ci dugg nii euh, ama yaatal nañ ko ci yeneen i jotaay ci yeneen i bi euh, nombre de lettres nombre de mots kalimat nga xamante ne ñoo nekk ci saar bi 217 la te cent 217 imaginez mooy lan mooy sayyiduna sayyiduna Muhammad ci euh, oriental maanaam oriental par rapport numéro la ci oriental pas occidental maanaam mooy lan mooy suñu sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy lan daf lay wax ni la saar bi mboolem liñ ci gis boo ko incarné da ngay jeex ci jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak xorma gi nga xam te ne moom nga ko war a jox yëpp ak ni lépp di concentré woo ci jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, nombre de lettre yi nekk ci saar bi 951 lettre 951 mooy ab zikr ab zikr maanaam mooy alquran yi nga xamante ne moom la ci la lépp concentré wu ci la lépp nekk maanaam nga gis ne kon saar bi dafa central ci domaine boobu le fait que boo xamee saar bi ak secret yi ci ne incarné ko maanaam fànn yi alquran traité yëpp. yow am amati problème ci mettre ko en application maanaam jëfee ko ni nga xam ne noonu la jaadoon noonu la waree noonu la mel doo am benn problème ci yooyu da ngay nekk koo xamante ne da ngay jaamu yàlla yàlla boo xamante ne moom mooy bi gën yàlla yi ak nga xamante ne noonu la gën euh, kon incha allahu taala euh, loolu xamante ne maanaam kon moom la ñu saar bi maam euh, ubbeeku su ko defee ci jotaay bi yii di ñëw incha allah dinañu commencer saar bi waxtaanee li nga xamante ne moom la lenn lu ci nekk ci saar bi maanaam li mu yanu li mu am ci ay maanaa maanaam aaya bu nekk aaya par aaya dinañ ko jàngat ni ñuy def nag mooy comme ni ñuy daan def ci yenn euh, tafsir yi ñu daan def mooy dañuy jël aaya bu nekk dañ koy firi ak baatam ak maanaam baat bi bu fekkente ne laaj na tekkantal ñu tekkantal ko maanaa yi borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax ci aaye ci baat bu ne ñu ne baat bi maanaa bii lañ ci wax wuute nañ ci ci maanaa bi lan lay tekki ñii nee nañ ñi nee nañu mais maanaam soit maanaa yëpp wér nañ wala bokk ni amaan na lii moo gën a wér waaye nag xam-xamu dëgg dëgg mbir yi dañ koy delloo borom bi suñu paree ci firi yooyu noonu ak lëkkale leen maanaam maanaa baat bu nekk buñ ko ak maanaam baat bi ci teggu li nga xamante mom lañuy jox suñu paré ci lolu soit par ben aya soit par ñaari aya wala par groupe aya man soit par ben aya wala bok par groupe aya ñu daal di xol lan lañuy ñuy jàngati ci aaya yooyu maanaam ci ay masala ci ay masala masala yi nak mëna nek masala fiqhiyya mën na masala usuliyya mëna nek masala pas-pas aqida mëna nek euh, masala tarbawiyya manam maanaam yar nit éduc maanaam voilà côté spiritualité mën na nekk euh, ci jikko yiñ ci war a jàngate mën na nekk masala ci domaine bu bëree bëri bëri mais loolu daal lañ ci maanaam noonu lañ fas yéene def ba saar bi jeex incha allah taala ñu ngi ñaan nag borom subhaanahu wa mu may ñu euh, ñu fekke ko mu may ñu